ñoom ñëpp ay mag lañ xoon bi ñu séy ak ñoom waaye léegi yonent bi sallallahu alayhi wa jël na ko takkoon na xaf sa boobu gannaaw si bi yonent bi takk na Seynab bintu Jaasin Seynabu bintu Jaasin moom itam xisa bu gudd moo fa nekk moo doon euh, jabari euh, Seyd ibnu Arisa boo xam ne ba nga ñëw moom itam su ma ñëwee ci si yi nga xam ne waxoon naa leen ko ne léegi asbaabu tashriiya la ak asbaabu taalimiya ak asbaabu li ijtimaaya danga nga ko fekk moom ci asbaabu tashriiya bi ci ngay fekk séem bii nga xam ne moom la nekkoon ak Seynab bintu Jahsin nga am Seynab bintu Xuseyma ñoo ne ñaari Seynab la yonent bi sallallahu alayhi amoon Seynab bintu Jahs ak itam Seynab bintu Xuseyma moom itam noonu amoon na jabar boo xam ne itam ñu ngi koy wax ummu salamata ummu salamata boobu mooy hind bintu abi uh, umaya bintu abi léegi moo nekkoon ummu salamata ummu bi yeneen bi sallallahu alayhi wa takkoon na ko moom itam am na xisa bu fa nekk boo xam ne buñ demoon nag xam naa ne bu fekkee ne lii jeex na su ma la ko limilee noonu ba pare bon dafay mel ni dañ war a jël par jabar bu nekk itam ñu waxoon la da tax mu takk ko ak kooku moo doon kan waa gannaaw umu salamata boobu dafa am itam umu habiba umu habiba boobu moom lañ daan tuddee ram la umu habiba ba tey mooy ram la moo tax nag ñu bari di eh, boolante eh, ñaari tur fi def ko benn jabar waaye fekk benn jabar bi moo amoon ñaari tur yi umu salamata boobu tey moom ngi la ñuy wax hind bintu abi euh, bintu bi uma bintu abi umaya walla umu habiba bon bintu ramla bintu abi sufiyaat la umu habiba ma ne moo tuddoon la ba tey waaye mooy bintu abi sufiyaan abi sufiyaan xam ngeen ne moo nekkoon king bu màkka moo itam xisa bu gudd moo fa nekk nam def ba dugg ci islaam jabaram boobu nga xam ne moo doon hind lu doon ku bañoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci commencement ba ba gannaaw bi mu dugg ci islaam gannaaw bu jëkkëram bii nga xam ne mooy abi sufi abu sufiyaan duggee ci islaam moom itam mu ànd ak moom dugg dugg ci islaam ba tey hind boobu jabaram moo doon ki nga xam ne moo reylu woon Hamsa baay tax bu yonent bi wala baay rakki papi wala ragu magu papi yonent bi salallaahu alayhi wa xam Hamza mu reylu ko ba pare xotti ko génne res ba ba yéey ko puusu ko ko ngir mbañeel goo xam ne bañ na ko islaam ak yooyu waaye gannaaw bi yooyu yëpp génne na ca ba Tuubaa nekk jullit boo xam ne jullit bu am solo la sax bon kooku mooy Ummu Habiba ummu Habiba mooy Ramla ba tey ma ne la bintu Abi Sufyaan waaye amoon na jabar boo xam ne tamit dafa tuddoon Maymuna bintu Haris waaw Maymuna bintu xaaris amoon na ko waaye yonent bi sallallahu alayhi wa amoon na itam beneen jabar boo xam ne dafa tuddoon Juwayriya bintu xaaris moom itam Juwayriya bintu xaaris amoon na ko. amoon na itam beneen jabar boo xam ne mu ngi tuddoon safiya bintu huyay safiya wala safiyatu bintu huyay léegi yonent bi salallaahu alayhi amoon na eh, jabar bu tudd noonu bon ñii nga xam ne moom laa la tuddal sax mooy ñi nga xam ne yonent bi salallaahu alayhi wa takk na leen ba bi muy gaañoo kuddu dut sayyidatuna Xadija wala am na ci ñoo xam ne mu ci suul daal mooy sayyidatuna ja waaye ñeneen ñi ci des ñëpp dafa mel ni ténj nañ ko ñi nga xam ne tudd naa leen ñii ñëpp ténj nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bon ci eh, gàttal wala li la jabar yooyu bon amoon na fukki jabar ak benn yii nga xam ne tudd naa ko ñaar gaañu nañ ci muy sayyidatuna Khadija ak sayyidatuna euh, ak ak ak Sawda ak Sawdatu bi gaañoo woon na mu des juróom-ñeneenti jabar juróom-ñeneenti jabar yooyu ñoom ñoo ko ténje bon ci gàttal rek mooy loolu sayyidat jabar yi nga xam ne amee woon na ko mooy ñi ma tuddal leen mu nekk juróom-ñeneenti jabar yoo xam ne nekk nañ gannaawam ak ñaar ñoo xam ne léegi gaañu nañ waaye am na itam ñoo xam ne daf leen takk ba pare ca fekk euh, taabiwut ata maanaam jotewut ak ñoom daf leen takk waaye ba nga xamee ne waa ñooñu ñëwaguñ ca kër ga wala léegi moom demagul fa gisanteegul ak ñoom léegi sëy booba jeex am foofa mu far eewi ñooña loolu itam am na fa bon ñooñu waxoon naa la ne léegi mooy sëy mooy mooy ñi nga xam ne léegi téññe nañ ko moo nekk Aïcha bintu Abi Bakrin nga am Hafsa bintu Amrin bintu Omar ibnul Xataab nga am Seynab bintu Jahsin nga am Seynab itam bu bintu Xusayma nga am Umu Salamata ca mooy Hind bintu Abi Umayya bon ummu salamata bi ba tey mooy hind jabaram bu ñu daan wax hind ba tey mooy ummu salamata ummu habiba jabaram bi ñu daan wax ummu habiba mooy itam kañ daan wax ram la ram la bintu abi sufiyaan la nga am maymuna bintu haris waaye nga am itam juwayriya bintu haris uh, nga am safiya bintu bintu bon juróom ti ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom ténji nañ ko ñi nga xam ne ténjuñ ko mooy sayyidatuna Xadija ak Sawda ñooy ñooy ñi nga xam ne ñoom ténjuñ ko léegi nag maa ngi la doon wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa am ay asbaab yoo xam ne moo taxoon mu takk loolu gannaaw boo xamee ne yàlla daganal na ko pour léegi moom mu am façon jabar yooyu loolu ñëw ci alquran nekk texte boo xam ne mu nga fa ba tey yàlla di ko wan ne képp koo xam ne may na la boppam dagan na ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam mu tam mu mu dem ak moom parce que xam nañ ne yonent bi salallaahu alayhi wa sallam lépp lu mu def yàlla moo ko ko sant waaye lépp lu mu def itam njëriñ la boo xam ne dafay jàngale dafay jàngal ñi nga xam ne ñoom la ci ñoom lañ ko yónni muy xeetam bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ni mu nekkee gën ci mbindeef ni la nekk itam gën ci xeet kon nag suñ ñëwee ci li nga xam ne mooy asbaab yi waxoon naa leen ne ñett lañ waaye xam naa ne eh, beneen programme boo xam ne ci lañuy war a indi details yooyu ne ñetti sabab yi moo taxoon mu takk leen benn bi pour jàngale la benn bi pour